dañ koo tëj waaye ak lu mun a xew <coughs> ak lu mun a xew su kaama amoon ba am ba am ba am ba am ba am ba am ba ay sa war a génn di whole of June prison la ko fekk it doesn't ak lu mun a xew ak lu mun a xew su kaama amoon dëgg dëgg dëgg ba ay sa war a génn di Hall of Juul moom foofu la ko fekk soo fekkee dabaat Friday yéen ñi nga xam ne man ngeen a xaar di ma déglu Friday ndax Aïssa dina génne wala du di the answer is capital letters tey la Wednesday Thursday Friday ñu xool li ma wax dëgg la wala du dëgg is no with capital letter Aïssa du génn because proofs ak evidence yi ñu ko war a àttee mu fa te ñaar la benn bi lañoo wax nii léegi let's say tey in the worst case ñu ne léegi dem neen kenn joojut Aïssa defut dara jeex na dafa dellu prison benn bi mandat dépôt moom leen ma dóoroon man ma toog ci prison bi ñetti weer ñu baalal ma ma def leta su ma looya si bindal leta ma su ma parents si def vidéo ñu baalal ma around january février ma génn ah février laa génn waaye aysa beneen kiisam bi boobu laa leen wax ne suñ ko toppee ba mu sës from Fatou Zeynab to Awa ñoom ñëpp ci géel bi la dem ba ci jëkkër ji te loolu bugguma cee wax lu bari waaye ñoom ñëpp den contribute to that all of them they contribute a lot to that so dafa baax ngeen understand ne let's say suñ ko suñ ko génnee ci bii ne moom deful dara dara dara dara deful dara dara dara defut dara dara still dafa dellu prison ñu ñëw ci biir bii nag amagut court date bii xam nga nu mu dee demee bi dafa toog jooj bi rek la moo gis ak looyam yi kenn du ñëw ci biir office yi jooj bi maa ngi ñëw wàcc xaaral ma ubbil leen ngeen wax seen xalaat tuuti it's sad ay sa dafa ñëw mu toog looya bi toog amul dégg ñu ne këri àtteekaay bi mu ne nii mu ne naa amu fa kenn du xam lu xew Aïcha jooj bi Aïcha jooj bi rekk ñoom ñaar rekk la ñoom ñaar rek ñoo faa toog xaaral euh, jéejee maa ngi laa bloqué ah. man maa la block because fake account nga 52 nga am moo tax ma la block I wanna announce your block thank you continue xanaa nga ubbiwaat beneen <laughs> ding ma na ma de jéejee yow adoo ñëw réel account rek ñu xam ne yow Eh, ñëw ni indiwuloo sa réel account mënumaa xam ne kan la tamit block naa la demal ubbil beneen nga ñëw te soo ñëwee nga réglé toog if nga dama la bloquaate jéejee pari jéejee mooy la yokkee su ci jéeg ju perte gi nga borom ci hmm? dama bëggoon ne borom coppare tunday waaye xam nga lu rafetul wax dafa war a nice su fekkee ci nga bokk kay jéejee demal nga ñëw rek man naa xam yow kan yow la kan rek du ci am problème hmm? léegi this is this is the thing beneen kiisi Aïcha bi beneen kiisu Aïcha bi allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam nga ne dafa am loo ma bëgg laaj. waaw. Mm-hmm. Uh, man yàgg naa di la topp sëñ bi suma sëriñ nga moom sa taalibe uh, dama bëggoon something I want to know something because yaa ngi explain ne like Aisha will go back even if they judge Aisha on Friday and said that Aisha didn't do nothing Aisha can go back to prison so the reason lu tax muy war a delluwaat prison loolu laa bëggoon pour ma xam mu ñu xam ok ñaari cases la mm-hmm. su dee yaa ngi toppa yaa ngee fàttale ko benn dee ma ne fileeg mm-hmm. Tuesday bii mm-hmm. mbir dina am dineen génne Aysa ci prison bi dem yóbbu ko laaj ko kenn you remember me saying that yeah yeah exactly loolu moo happen mm-hmm. ñu yóbbu ko téye ko fa loolu beneen problème la mooy ne biñ ko toppee ni ba jàpp ko boobu affaire blackmail la comme man a yow ñu doon waxtaan ma record la te yeguloo ko ma laa ko la tiital waaw di la ko seen di la traite bi ñu ko jàppee ba pare mm-hmm. ñu indi beneen case mm-hmm. ñaari case yi si du benn bii flagrant délit la mooy dangaa dem di gis jooj lu ñu laa jàppee lu tax ñu jàppala they already have it before ñu jàppala mm-hmm. mooy ne traite si wala vidéo bi am nañ ci lu leer moo tax ñu jàppala mooy flagrant délit bi léegi nag mandat dépôt la mandat dépôt mooy tuumaal neen la loo xam ne pàcc yi mu fa ne yow dugga nga ci waaye xamuñ yaa ko def xamuñ def loo waaw da ngay dem prison nga toog xaar jooj bi mm-hmm. ak investigation investigation si mm-hmm. ñu investigate ba pare ñu rappoo nga mm-hmm. door a ak code de di dem code di ñëw léegi nag ñaari keesi si du benn Mm-hmm. léegi su fekkee ne nag blackmailing bi den dem ñu ne dëgg dëgg proof amut evidence amut boobu jeex na. Mm-hmm. beneen bi mooy go on dafa dem toog boobu xaar. Oh, ba jooju pare ba am code date ñu demaat xëccoo dina am wala du am te boobu noonu faw ñu déglu Fatou Fati. Mm-hmm. Abdoulaye Bass. Zeynab Fati. Aïssa Fati ñëpp den leen a déglu. mooy mooy mooy familleem. non mun hmm. doo wax famille famille is laaj waaye tour yi ma la tuddal nii. ñoom ñëpp a xam moom demee ñoom ñëpp dañoo hmm. ñëw ñu laaj leen as a witness. because hmm. communication mu ngi doon dox ticket ñu ngi leen ko doon jënd they all know what's léegi nag ñoom ñëpp xamoon ne mbiri takk geeg waxtaan beeg yëpp te den daan wax ak càmm daari te ku nekk càmm may na la. waaye lim leen leen ko soxlawu ko alalam la moo leen ko may. jigéen ku ko teral yàlla teral la moom business rek la moo laaj. léegi nag ñii ñëpp dañoo dem suñ demee as a witness xam nga dañ a laaj dinañ tontu. question mhm. léegi suñ la laajaatee tontu mun ngaa dugal sa bopp mun ngaa ñàkk a dugal. it depends on yow liñ la doon laaj mu ngi mel ni tey ma ne la Cheikh Ahmed de den ko dóor ba de nga ne waaw yëg naa ko nu mu demee. Mhm. nga ne waa dafa dem ci waañ bi jël kuur bi after bu mu ko ko dóoree. ma téye ko ma ne ko bàyyi ko xam nga dugal nga. Mhm. par exemple yow den la oo as a witness. mais in ci sa explanation yow dugal nga sa mhm. moo tax ma ne la ñoom ñëpp ci kaso gi la ñoo jëm because they are well implicated ñoom ñëpp thank you so much den impliqué ñoom ñëpp ñoom ñëpp impliqué waaye nag dañ leen a respect jox leen right because Sénégal dëkk yoon la ku ñëw ñu laaj la ku ñëw ñu laaj la ku ñëw ñu laaj la léegi nag suñ la laajee bu leen fàtte ne bi ko caam joxe woon or yi pour mu jënd pour sëy bi Aysa ne ko Jamila dafa nekk te moom nangam nangam wax lu ñaaw ci Jamila bàyyil Faatu Faati moo jóge woon Nigeria non euh, Zeynab Faati moo jóge woon Nigeria dem tooki fekkante fa ak jëkkër ji bi ñoo ñëw tegaloon na leen picture bi on the home kon jëkkër ji xam na li xew ndax ngay waajee takka nit muy jënd or yoo xam ne yow mënuloo ko am bés bii ni mu garaawee understandu leen ko sax den toog fii rek di jot ay audio yu ndaw waa dafa ñibbi Friday caam saaca la suñ OIC bi xam ngeen déggatu leen OIC bi why would I take F Danso ma wax ki ma war a jël ak ki ma du jël suma life F daf ma dee seetaan daf dee ñëw fii di ma may flaw lu tax ba tey ma ñëw wax mu ne ma jël ko suma sista la xam naa ko waaye du ma ko jël man ku dul ñëw suma live di ma support suma def live ma la jël simple I don't care lan leen bokk ak fan leen neexoo ñi ma may flowers di ma support su ma taalee ñu ñëw doo are the people I'm gonna pick waaye toog fële ba mu neex la rek nga ñëw rek ne jël ma du dee demee noonu even su fekkoon sa yaayi caam nga jëluma la ay man xam naa mun naa wax star la nit yu bugga neen ma dama xew ñu ngi ma seetaan so am good may ba soxlu ma kenn tu compliment so faatu boobu nga wax naa ko jël su fekkee am na internet am na mobile na dem taal live am du fii fii ku dul support doo fi ñëw man star dama xew yow <laughs> am naa followers am na audience bugga neen ma lu ma def mu neex leen hmm? ba pare maa ngi fresh leer mun a sañ yéen ma xew lii dafa yomba ci jamono yow tamit gi jegi gi jegi gi derek jeg gi jeg gudeg gi deg gi deg Thank you. la buy